ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi suivre Sen Sports ñu ñëw leen ci benn vidéo wax ci match Tottenham bu Pape Matar Sarr suñu gaynde bi mu nekk match boo xam ne tey match bu solo Tottenham doon jàkkaarloog Luton match bi mi ngi toll ci 82 minutes mais guddi ñu waxe yéen Tottenham jël na rouge mais moom moo mën euh, daan ñëw ci loolu gën cee développé mais laataa loolu dañuy wax yéen ñiy suivre Sen Sport ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour ngeen am suñu vidéo au taaral fii ci Sen Sport ngeen di mën a commenter dañu sant ngeen di ndax loolu dañuy gën a doole bi gën a mën yi li nga xam ne moo xew ci football rawatina suñu gaynde yi Pape Matar Sarr tey nag ba mu wane fële nga xam ne mooy Tottenham taxawaay bu yéeme la bi saison bi commencé ak léegi day naam ñu ngi ci neuvième journée huitième journée mais Pape Matar Sarr sa match day titulaire coach gëm na ko l'Angleterre du championnat bu ndaw Tottenham du club bu ndaw ci Angleterre kon buñu demee ba gëm ne am na talent bu ci moom ci xale boo xam ne vingt deux ans vingt trois ans ci lay toll ñu jëm ñun ak Cameroun na Pape Matar Sarr wane wane boppam bañ gën koo bàyyi xel bu baax a baax ca Coupe ba nga xam ne fa lañ jëm Pape Matar war naa wane goo xam ne bu ñu jël Coupe d'Afrique dañ naan Pape Matar Sarr suyee na ci en quatre-vingt-dix pour cent te am nañ boobu yaakaar bu baax a ndax xale bi nga xam ne mooy Pape Matar ku gëm liggéey la ku gëm boppam la ku osé la ku mën la mi def la ngeen abonné ngeen merci